professionnel maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen nuyu di wane ni di wax ni engagement bi ngeen àndal ak engouement bi ngeen àndal Samb di nuyu Maguette Sène moo xam ni mënut a nekk maire Ndiaganiao bay di jéem a aspiré nekk président wu Sénégal l'honorable député Omar Sy di sama mag xarit maa ngi koy sant bu baax di ko masawu ndax dégg naa ni tey dafa am xew-xew bu xaw a naqal tuuti ci la demoon responsable mais Taïdi population au-delà des responsables que nous sommes ñoo depuis le matin pour nous réserver cet accueil je vous remercie en tant que responsable mais je remercie je remercie les populations de Mbou. passé am lu ñu waxoon dinaa ci jukki ci ñaari secteur muy tourisme ak pêche a pas may wax tourisme ak pêche dama bëgg lancer un appel au secteur privé national le patronat

marché yi am nañu ay jafe-jafe ci fay yi dëgg la ci situation bu bu xaw a jafe la réew mi toll woon at yi passé ndax mbas mi ba tey jii ñu ngi ci conséquence mais li nga xam ne mën naa ko wax élu élu li mu jar dinaa ko def pour ñu fay leen totalement li nga xam ni yoral nañ leen ko